mbir bi moom euh, li ñu war a soppi dafa leer parce que dañu ci yàgg sëgg di ci gëstu. Mm-hmm. Euh, Pape Ndiaye mii ngay wax. parrainage bi dañ koy dindi c'est clair. Euh, non waxaguma sax parrainage bi. Ah, mais mbir réforme justice bi nga ma laaj. Mm-hmm. Pape Ndiaye mi ngay wax maag moom Assane Dioma ay juge d'instruction ay procureur passé nañ toute une journée avec benn fondation étrangère pour réfléchir sur la nécessité. d'instituer un juge de libertés et de la détention waxu bala avocat yi mais ni kër judiciaire yi nga xam ne yàgg nañ dem tribunal fonctionnement yi xam nañ ni tey fii Sénégal euh, ak fu ñu toll ci niveau démocratie mhm. war ñu bàyyi procureur moom kese muy décider est-ce que yow da ngay dem kaso wala doo dem kaso France ñi nga xam ne ñoo ñu bàyyil texte mënuñu wax justice Sénégal te waxuñu France parce que dañu bàyyil ay texte yi nga xam ne ñoom ci seen bopp gis nañ ne texte yi wul ak àq ak yelleef soppi nañ ko bu yàgg mais Sénégal dafa am benn archaïsme pénal bu ñu ñëwee def benn juge bi nga xam ne mooy liberté détention euh, des juges des libertés de la détention mais problème mu retour de parquet xoolal Babacar Touré mm-hmm. mais foog ñu saisir justice internationale pour affaire yi bën a dakk parce que Sénégal rek ngay gis nga def sa garde à ba mu jeex. Mhm. ñu maintenir la ci benn zone grise bi nga xam ne benn texte réglementé wu ko ñu naan retour de parquet alors que lu àq ak yelleef doomu aadama yépp ci convention wax mooy même bu ñu la arrêté tere la nga avancer ñaari seconde mais dañ la war a notifier ban régime nga nekk d'une certaine manière donc dérive yooyu pour ci tënk soppi moom mooy ñu def benn juge des libertés de la détention mhm. comme ça mandat de dépôt yi dootul nekk nii di daw ni tulleeg male benn ñaareel bi moom mooy justice ci boppam mais foog ñu fexe ba procureur de la république ci boppam mi nga xam ne il ne pas une autorité au sens judiciaire de la convention des droits de l'homme donc au sens judiciaire tout tout tout donc tout court parce que moom njaatige ministre de la justice moo koy wax ni dossier wu mbow bi Euh, bu ñëwee téye ko. mais mais mais finalement est-ce mm-hmm. nekkul problème. bu ko waxee mënu na def safaan ba. te kooku bu amee dossier politique bu question bi ngeen war a poser loolu boo war a tax man ne maa leen di ñax ngeen def benn say défendre seen corps parce que booy défendre tey kaawu Pape Ndiaye wala keneen sa bopp ngay défendre et li may wax dafa leer parce que dama ko dund d'expérience d'une certaine manière warta am c'est-à-dire daa am àdduna bu ñu tollee ci yenn jamono yi Euh, foog nga far lu ñuy yenn neutralité yi forme de lâcheté la d'une certaine manière mhm. comme nu ñuy yàgg wax ci olof bu dee jotee ku dudd doo góor ça ne veut pas dire da ngay xaru mais da ngay wax dëgg nangu féete féete moom mooy nga féete ci dëgg ci justice